أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul xuqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi ñu ngi fas yéene ñëw yéen ci waxtaanu koor ci yor yoru koor mu mel ne bind yi jàll leeroon nañ ya ayuhal lisina amanu kutiba alaykum siyaamu beneen bind bi ci topp ñu leeral faratay koor ak ñi koor war ak ñi koor wàcc ñetteelu bind bi ñu waxtaanee laaj ak tontu ñeenteelu bind bi tey nem sob na yàlla dañoo fas yéene ñëw ci laaj yi ak tontu yi lu jub ci laaj yi yàlla la lu ci dëng ñun ñi xamul dara di ci jéem wax la mu mel ne laaj bu njëkk bi kii dafa laaj ne ndax nit mën naa woor ba noppi di nido ndax nit man na wor ba nopi di lido lolou loolu ta nekk ndax yalla day téré fo fo don lu aram fo don lo xane baxul té lido fo la ta ci biir fowu lido bi sax man nga caa bolé sax carte fara kon kenn ta nekk wor ba paré di lido lido day yak koor kon yoy mi laaj laaj wor mën ta and ak lido wor di lido dafa aram ñaareelu laaj bi mu ne ndax jigéen mën naa téye kaamil waaw jigéen mën naa téye kaamil bu fekkee ne set na moog góor rek ñoo ci jigéen bu setee mën naa téye kaamil jigéen bu setul mënta téye kaamil góor gu set mën naa téye kaamil góor gu setul mënta téye kaamil set nag soo ko bëggee xam dangay fexe noo xam ba jàng ko. beneen laaj bi nee na dafa dégg ku ñuy wax Mohamed Khalifa Niass Khalifa Niass wax ci télé bi ne. jigéen ak góor muy jëkkër ak jabar mën nañoo fóonante ci weeru koor mën nañoo raayante ci weeru koor ba mu des sëy rek loolu dagan la nee na déedéet loolu araam la islaam waxul loolu ndax sit nañ ci weeru koor bu la leeree ne yàgg sa soxna bu ngeen nekkee di bànneexu dañ ci yëg bànneex doo ci yëg bànneex bu la leeree ne doo ko ci yëg sit nañ ko waxuma nag mu leer la ne walla boog xamul wala dang nga ko yëg wala do ko kon lol Ahmed wax dafa joom wala bok mu teg ko ci yeneen sariha mais sariha bi mom wor di banne xox sa jawaat ak kenen ku mom di sedan lu bon wala ngay xol lu bon dafa aram kenen ki neena lan moy waral sangu farata neena sangu farata lan mo koy waral lutax nit di sangu farata budé jigen la bu gisé régal bam set dafa wara sangu farata bu seyek jëkkëram war a sangu euh, sangu farata bu sëyee keneen kurub jëkkëram dafa araam dafa war a sangu farata ndax dafa war a leer bu géntee ndox mi génn dafa war a sangu farata waaw bu fekkente ne dafa wasin ba dereti wasin ji jeex dafa war a sangu farata buy xalaat ba ndox mu génn maanaam man niyu dafa war a sangu farata bu dee góor même soos bu fekkee dafa gént dafa war a sangu farata bu sëy jigéen dafa war a sangu farata bu xalaatee ba ndoxu mën yu génn dafa war a sangu farata bu fekkee dafa def faddu xasaf dafa war a sangu farata faddu xasaf mooy nga jël sa sàkkara si teg ko ci pëyub xale bu jigéen bi far yàlla doogu mujj dugg bu boobaa yéen ñaar ñëpp da ngeen dem daal di sangu farata loolu mooy war a sangu farata kii ci des nee na ndax ndax am far dagan na nee ndax am far dagan na mooy kon ko ci ndax am gel dagan na déedéet dafa araam far daganul gel daganul lolu masala bu leer la ndax far ci senegal wala ci aduna moy ki nga andal di taxawalu bu la nexé tak bu la nexé bayyi bu dee gel ci aduna moy bu la koy andal di taxawal bu la nexé tak bu la nexé bayyi dafa aram jurul faram-fàcc xam ngeen far dafa aram gel dafa araam soo bëggee takk danga nga labati jurum ben wer so paree nga tak bon ki ci dess neena ndax jigen bu fekke day gis règle euh, ndax julli ya da koy fay dedet du fay julli ya koor ya lay fay jigéen bu fekkee dafa gis régal du fay julli ya koor ya lay fay waaw ci tamit neena na ndax woor di wax loo xam ne ay waxi jàmbur la dagga na wala dagan dafa araam loolu boo ko defee da dog ndax ne na farata faratay koor ñaar la yéene fexe moytu lépp lu lay dogloo kon wax ju ñaaw wax ju bon day dog koor ndax dañ ne sa gémmiñ day woor sa bët woor sa làmmiñ woor sa tànk woor kon du ñàkk du caageen lekk ak naan rek mooy tax woor gi dagan mais wax ju ñaaw xool lu ñaaw xenc lu ñaaw dox lu ñaaw loolu lépp day yàq koor kon li lañ leen fi indiloon ci ay laaj yeneen laaj yi des temps duñu ko may ñu bàyyi ba beneen émission ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ci jub ci yàlla la lu ci dëng ñun ñi nga xam ne amuñ xam-xam di ci nabi la والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات